damaa dégg chef de l'État bi léegi di wax am ñu koy jàmbat dëkk bi salte te loolu daanaka waruñu cee waru leen cee xaar benn maire wala benn maire wala benn responsable politique xam nga moom mi jiite réew mi bu ngeen demee këram buntu këram bu ngeen fa gis bant bu ngeen ko fa gis de ah am de est-ce que màcc këram dina tilim ah mu bopp léegi nag waa luy bàyyi si kër muy tilim lu leer léegi nag yéen juróomi fan laa leen may ba lay fu ñu ni ci mer bu na bokk rek ñoo bokk kër muus naa moom aw Bakar Seck laa koy defal Bakar Seck waxuma bu jege këram nag am na ay daanaka yoo xam ne dañu naan comme wax naa ko rek fépp lañu war a bare ba jege këram bañ la natt yi tam de fa kenn jege këram de ñii lañ fay gerteel mbokk yi kii wax lañ fay gerteelu yéen moom mer muus daal ñu ni ci mer muus la bokk balay dimanche. fa kenn di sa ci ban na jëndee mbéy mi des noonu ba xam ba xam salte gën a amal yéen nit am na bu dee sécurité bi ñuy wax agression yi ñuy wax ak yéexe ci góob xale góob nit góob nit fekkente de kenn ku nekk gox ba nga dëkk gudd nga fa équipe ni ko président waxe léegi ngeen di say koñ koñ koñ ngeen di say koñ pour lu fa war a am ak lu war a am ñi ñëpp defee loolu responsable foo leen am responsable nga am maire nga fa wala am conseiller nga fa wala nangam ak nangam boo gisee lu dul noonu nga delloo si ñu faj li jàpp la fànn yëpp la laaj li yomb a faj waaye damay xaar police bi ñëw mbaa gendarme bi ñëw mbaa bu leen leen xaar ndax ñoom dañoo minoritaire ma ki wax na ko léegi civil yi ñëw majoritaire lu dëkk réew mi jàggi na dañu koy bàyyee ñoom rek waaw ah, dañ sa am nun leen di jàppale loolu rek ñu gën a sawar si seen liggéey du dëgg léegi nag sama jëmmi bopp ba daaray Xaadimu Rasuul baa ñu ma fa nekkal taxul may wax su ma nee Mermoz bokk ci Mermoz balaa dimanche bu fa kenn gisati bant su may wax loolu Macky laay soutenir dama ko waxoon ne ko dinaa la soutenir nu nekk gemelos.